ngir nag yëf yi daal di rek gën a yemb rawatina ak jëriñ li nga xamante ni ni ma ko waxee nag moom la dénk wàllu wér-gu-yaram am na nag ab euh, bataaxal boo xamante ni euh, génnee nañu ko jébbal ko nag mbooleem kër docteur la ñu ci jublu rek mooy xool daal lu bare bari luñ ci war a yoonalaat lu ci mel ni yenn ci lal yoo xamante ne dañu koy soxla ndax ku ne xam na ni euh, lii de réanimation jamono ji doon naay jafe-jafe mbaa sax lal yu ñu mën a tëral kon maladie moo waral daañu xool daal lal boo xamante ne rek kon mën nañ koo jëfandikoo ko ñu jëfandikoo ko du tee nag euh, ñu du tax nag ñu bàyyi kon rek gannaaw yeneen euh, jàngoro yi euh, tolluwaay mbas mi ba tey ak ñu ñàkk seen bakkan tey mu toll ci fukk ak juróom-ñett diggante démb ak tey gàtt gàtt ñeen fukk ak juróom-ñaar ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ñi ko am nag tey jii toll nañu ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak benn beneen ponk ci biir xibaar yi jëm ci mbas mi ba tey mu ñeel nag médecin chef bu district sanitaire bu diwaanu ndax ñu gën ko xam ci Jocelyn euh, Désiré Kabou euh, moom nag euh, moo daal di rek kon ñàkk bakkanam ci mbas mi foofee ca diwaanu Ndar nag seere ya benn na ci dogu gi nga xamante ne dogu woon na ko lool sax ci liggéeyam les bonnes feuilles de la rédaction ni ñu koy defee nag alxames ju ne tey noonee lañu ko defaatee nag ab téere tey lañu indi bii nag la pom d'Adam lañu ko duppee bu ñu ko déggee taarix la ci biir jaar jaar it noonu jaar jaaru ki nga xamante moom mooy Doudou euh, Guèye di professeur mathématique ak Rokhaya nekk nag ab étudiant bu ndaw ci wàllug euh, médecine mu nekk euh, ñaari dund yoo xamante ne wute na naam waaye nag seenub jaar-jaar ci biir rek kon téere bi nag bari na lu mu wund lool Ibou Diouf dina dikk ak ñun tey ci les bonnes feuilles de la rédaction tàggateeram Madi ture nag mi ngi wéy di fësal programme am gannaaw ba mu nemmeekoo nag diwaan yu bari ci Sénégal la mu xamle moom candidat syndicat bi nag di yootu euh, rek faute yu fédération sénégalaise bu euh, football mooy coppite dëgg la na ma indi euh, ci football bu Sénégal mbokk yi ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalle nag jàmm ci euh, xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon rek euh, ci mbas mi lanu kaa dooree rek ak euh, tolluwaay beeg loraange yi am moo waral nag jëriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu soxal wàllu wér yaram nag jël matuwaay fas yéene indi coppite ci kër docteur yi lu bari nag daanu ko yoonal ndax fi mu ne nii lu ñu jublu rek ci liggéey bi mooy bépp lal boo xamante ne mën nañu koo jëfandikoo ñu fexe nag daal di koy libeere su ko defee foofee dootu doon ay jafe-jafe mu am benn bataax. xal nag boo xamante ne kon ah, daal di nañ koy génne nag dëxan ci lépp loo xamante ne namm nañu ko ci eh, liggéey bi ndax léeg-léeg ngeen dégg ni ah, lalu ñu tëral nag ñi amee mbas mi ah, ñàkk na ñu ne nag loolee du tax nag ñu bàyyi yenn jàngoro yi ginnaaw Fatou Bintou Konté lañu ci àndal ak Jafara Ba ak ni mbas mi yokkee ci dëkk bi ñu dugg ci troisième vague ba tax ni hospitalisation yi bari lool faaw nag li nga xam ne moom moo di service hospitalier yi nekk fii ci ndakaaru ñu xoolaat seen doxalin xool nu ñu leen di fu ñu tolloon ci mbas mi loolu mënatul doy Sénégal tey boo jëloon fukki hôpitaux jël yépp pour mbas mi du doy waaye xam nga organisation bu ci nekk ak li jumtuwaay yu ci nar a nekk bu ñu ko ci defee sax boo moytu ressources humaines duñ ko am kon nag si lañ ne nag nañu organiser waat. organisé bi kilifa bi dafa signé benn note boo xam ne dafa ne tey dakaar am na bërëb yoo xam ne ci biir l'hôpital nit ya fa nekk néew na ndaxte xam nga waaw fréquentation bi demeewul noonu baissé na waaye tamit da ngay fekk benn bërëb ñu ne la par exemple fii bërëb bi Fatou Bintou Konté lañ ko tuddee ñu def fa fanweeri lal waaye ñaari weer ñetti malade ñoo fay nekk xaalis bu ñu fay def dafay bëre te amul njëriñ ñu ne nag léegi ñetti malade yooyu bu dee seen jàngoro du jàngoro boo xam ne mun nañ mun jàngoro boo xam ne mun na jaxasoo jàngoro bële nañ leen jël ñu dugal ni ci service bële ñu jël fanweeri lal yooyu ñu dugal ko ci mbas mi léegi nag personnel bi nga xam ne ma nga fa te defatul woon dara ñu dugal leen ci mbas mi dootuñu soxla di dem recruter du ñu soxla di dem uti ay équipement wala ay branchement oxygène parce que loolu yëpp am na fa. ba tax ni sax li nga xam ne moom la ñuy wax le principe de la filialisation ci hôpitaux yi maanaam hôpital bu nekk ak la nga yëngu ñu bàyyee la ko nekk na loo xam ne ab atu ndax dina permettre ñu libérer li nga xam ne moom moo di ay lal ak tamit personnel bi gën a mën a yokk. dafa ne tamit il foog ñu organiser waat hôpitaux wu Dakar yi mooy lan mooy hôpital boo gis dafa xaw am spécialité boo xam ne moom la ŋànk moom si la ëppee doole te si la ko ko bëri xamee xam nga tey boo ne jabet dañ la naan Abass Ndao repos Mandel ndaxte am na service service diabétologie bu mag boo nee lépp lu dem ci ay damm ay ay ay plâtre dañ la naan hôpital sa Pouye parce que buñ koy créé loolu lañ ko créé buñ la nee li dem ci ay neer ñu ne la Fann bu ñu la nee lu dem ci ay euh, imagerie ñu ne la principal ak lii léegi nag organisation boobu la euh, jëwrit bi indi ne léegi dañuy filialiser hôpitaux Dakar yi bu ñu ko filialiser mooy soxlatuñu nit yi di ñëw di dem ci hôpitaux yëpp pour cardiologie wala di dem pour ñu hospitaliser si lii déedéet mun nga dem ñu consulter la xam ne problème cardiologie ñu référer la Fann léegi nag disposi disponibilité bi ñu am ci lal yooyu yëpp dañ koy dugal ci mbas mi ministère bi moom la fas yéene jël ndax génne na ab benn circulaire li jëm ci wàllu woowee ndax du tax yeneen pathologie yi ñu bañ leen a faj ki nga xam ne moom mooy directeur établissement public de santé yi maa ngay dalal xel yi. mooy lu tax ñu ne gàcce nga la mu Sénégal Sénégal dafa def loo xam ne ni ko def de bëriwuñu mooy dañu ne dinañ jël mbas mi. waaye bu ñu jël mbas mi yeneen jàngoro yi waruñu ko négliger boo ko xoolee ñun lu ñu jël ci lal pour euh, réanimation matul téeméer te Sénégal yaakaar naa fu mu nekk nii am nañu lu mot ci ñetti téeméer ak lu tegu ci lal yoo xam ne pour réanimation la waaye dañu jël rek 20 pour cent ne 20 pour cent yi la ñuy jël ci lal yi. jox ko mbas yeneen yi day jël diabète day jël cardio day jël te li. moo ne di ki ab syndicaliste la la santé mu du ñu xamal ni moom bi les méthodes xaw na tey xelam. du santé lañ wax waxuñu maladie donc amul ministère de la maladie ministère de la santé lañ wax bu ne ministère de la santé nag elle est global cest à ki am Covid sax mën na am beneen feebar mën na am diabète mën na am cancer mën na am yeneen feebar donc Covid bi bàyyiwul kenn donc tey jii bu fekkee dañu bëgg a jël rek Covid rek bëgg a jël lépp dañuy. soo sooxal yeneen yeneen yeneen feebar yi te conséquences yi ci mën a am dafa dafa doy waar. jamono ji ñu toll nag Dakar rek moom moo concerné wu ci organisation boobee ndax dañoo xool ni fii li ëpp ci maladie fii la nekk. mangook lépp ci maladie Fatou Bintou Konté bari na lool it ñuy ñàkk seen bakkan tey toll nañ ci fukk ak juróom-ñett diggante démb ak tey ñeent fukk ak juróom-ñaar ci euh, doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci euh, mbas mi woon ñi tey nag ñi ko am juróom-ñetti téeméer lañu ak fukk ak benn ci ñetti junni test ñu def yu teg ñaari téeméer ak euh, ñett ñu ne nag wàllante googu ñu xamul it jàppale ni toll na ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñu tamit ñi nga xamante ñoo wér tey ba war a dellu ci seen kër ñu toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar juróom-benn fukk ak ñeent ci cas lañu am ñu des euh, ci euh, mbas mi ba tey ndax euh, yóbbu na ki nga xamante ne moom moo nekkoon médecin chef district sanitaire bu diwaanu ndax ñu gën ko xam ci docteur Evrard Jocelyn Désiré Kabou faatu na levée du corps bi nag tey jii lanu ko amal rek ci hôpital régional bu diwaanu Ndar seereye nag genn la ci waa jooju nga xamante ne liggéey képp moom moo ko ñoroon dañu ci ànd ak Ousseynou Diop. médecin chef bu district sanitaire bu Saint-Louis daal di génn àdduna docteur Evra Joseline Désiré Kabou li ko yóbbu mooy feebaru coronavirus bi si bisu talaata bi lay lañ doon amal levée du corps bi ci hôpital régional bu Ndar am di jàmm ak ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ci lu jëm ci wàllu kër docteur ñoom ñëpp ñëwoon teew. seede yi benn la nit ku am yar la waaye tamit fonko liggéeyam. Euh, maanaam sama yaay ak papam ñoo bokk ndey ak baay ñoo juddu même kër ñoo màggandoo même à l'université ñoo bokk néeg on a vécu pas de choses maa moom dund nañ lu bëri bëri. mais nit ku ku yëg nit la nit ku am respect ci nit la. ñun ñaar fukki atangi nii ñu nekk moom noonu la ma sa mel ñi ma woo ñëpp tey dañuy ñaan ñu témoigner si simplicité wam ci courtoisie wam ci respect bu mu jox doomu aadama ak ci cawarteewam si liggéey ndax liggéey daaw ko boole kenn. ci kàddu que préfet bu département bu Saint-Louis administration bi am nañ lool satisfaction ci liggéey yi nga xamante ni def na ko moom sax gis na ni ci bis bi nga xamante ni si la waroon faatu lépp luy liggéey bi mu waroon def def na ko. ba jour bi muy décédé à 12 heures envoyé na ma texto pour ma faire le point de situation de la de la Covid 19 ba 12 heures mi ngi si sama mail yi envoyé na ma le point de situation pour dire à quel point il était sérieux dans le travail à quel dafa amoon abnégation à quel point dafa bëggoon liggéeyam. docteur Evra Joseline Désiré Kabou ñu ngi ko war a jébbal boromam fële ca Joal. levée du koram ci hôpital régional bu Ndar nag seede yi benn la nit ku fonkoon boppam la waaye tamit fonkoon liggéeyam. Euh, jàngu bi nag euh, jël na nañu euh, matuwaay ci fàttali sax matuwaay bi nëga ni daaw nag jëloon nañu ko ba mbas mi tare ren ñu jëlaat ko mu jëm nag ci xew-xew yi nga xamante ne moom ñuy amal mu soxal nag kon jàngu yu ñu ne nag dañuy seet daal nu ñu ko gën a rek yoonale rawatina lu jëm ci ñi faatu ba ñu war leen a denc kon ñi nga xamante ne ñoom ñuy dugg ci biir sëg yi dañ leen di yemale ñëpp nag du ñu mën a dugg nag noonu lu soxal xew-xew yi tamit dañu koy wàññi bu baax a baax waxtu yi ñu daan may nag ñu di ko def waxtu yooyu dañu koy wàññi moo waral sunu naataango Marcel ba Maroun doxantu na ba ca sëg yu Saint-Lazare féete fële ca VDN ba. jàngu Sénégal jël na ay dogal ci wàllu cérémonie enterrement yi gannaaw bu mu gisante ak aumônier bu archidiocèse bu Dakar comité de gestion des cimetières chrétiens ñu gën ko xamee ci COGESIC jël na dogal indiwaat mesure yi nga xamante ne dañ ko doon appliqué daaw ba Covid 19 bi lamboon ci réew mi. sooy dugg ci biir cimetière yi. ñaar fukk ak juróom nit la ñu permettre kuy dugg ci cimetière bi na yor maskam kuy dugg ci cimetière yi am na euh, jumtuwaay yu ñu teg ci bunt bi. ndox saabu gel yooyu yëpp mu ngi ci bunt bi soo ñëwee nga jàdd raxasu def sa gel doo dugg ci cimetière yi léegi ay condoléances yu ñu doon présenté ci ci bunt buntu cimetière yi ñu lool dañ dañ ko dindi amatul ku bëgg a présenté condoléances jël sa téléphone nga woo njaboot bi. ensuite exposition corps yi ñu doon def parce que église def ko tere woon donc fii lañ ko doon def ñu ne exposition de corps amatul. dégg nga su soo jógee ci morgo bi daal di nga gis corps bi su fekkee bëgg gis corps bi nga dem morgue bi ñu won la ko su weesu loolu weesoo amatul exposition alors soo duggee ci biir ci biir euh, cimetière pour pour pour suul fanweeri minute lañ la lañ la autorisé parce que rang bi day dañuy jiitalante ñi ñi topp dañ doon xultu waa yàgg na yàgg na kañ la ñuy dem a yéen voilà loolu li li may 30 minutes dinañu am jot ci bés bi pour ñu suul ñëpp. boobu boobulee organisation day laaj ay matuwaay yu dëgër waaye COGESIC pare na pour ñu koy appliquer ñuy fàttali ne boobu dogal depuis lundi bi passé lañ ko jël. jumtukaay yëpp mët na jël naa ay nit yoo xam ne dañuy toog ci bunt bi jël naa ay nit yoo xam ne dañuy dem fële fi fi fi ñu koy suule ñoom am na tool pour ñoom ñu mën a waxante ci bunt bi ak kii pour respecter timing bi voilà yooyu daal jël nañ ko. Euh, mesures yi gel yeeg yooyu yëpp jënd nañ ko démb. ñuy yaakaar ne mesures yi dina tax ba xeex bi ñuy xeex mbas mi am ay résultats yi ñuy xaar ndaxte kat jamono ji communauté catholique bu Sénégal moom tam mu ngi jànkonteel ak ay enterrement yu bëri bu ñu sukkandikoo ci COGESIC amoon na ay jamono bés bu ne bu ñu suulul ñaar wala ñetti nit amoon na sax ay fan yu yundul daan suul waaye jamono ji lu ñu seetlu mooy juróom-ñaar ba fukki nit ak ñaar ñu ngi leen di suul bés bu ne ñu koy jaajëf bu baax a baax Marcel euh, Maroun bloc opératoire euh, bi nekk ca centre de santé Elisabeth Diouf ba ca euh, Daara nag ña fa féete ña ngay wooteeg wàllu bloc ba 2019 ba tey nag ma nga tëji buntam di ay jafe-jafe kese ndax tey ñu bari ñu war leen a opéré mënatuñu ko def moo waral nag ab xew-xew daal bu ñu fa amuloon doon fa may ab ambulance ca la ñu jaaree nag wax li nga xamante ne rek moom mooy jafe-jafe boobee beneen jafe-jafe tamit ñu ne dañu koy dégg nëgëni euh, Fouras muy ab euh, médecin anesthésiste boo xamante ne nee nañ daañu leen ku fa indil euh, ca daara ba nëgëni nag ña ngay xaar dañu ci ànd ak Mamadou Moustapha Ndiaye. centre de santé Elisabeth Diouf bu daara am na ab bloc opératoire waaye ñaari at nii mu tëj ndax ñàkk ku ko yore. am na ñaari saal yu yu yoo xam ne ne nii mën nañ si opérer de tey tey tey tey nii yu bien équipé yu yu àndal ay jumtukaay yu mucc ayib quoi aussi am na benn salle bu ñuy raxasee nettoyer bagages yeeg yooyu ak benn bureau anesthésiste ak salle de réveil bu maanaam mooy salle boo xam ne bu ñu opéré malade bi foofu lañ koy tëral foofu lañ koy defee kii traitement ba si war quoi. bari na ay jigéen yoo xam ni buñ daan wan loor buñ waree mucc fa lañ leen di fajee looloo waral ba ki nga xam ne moo jiite comité développement sanitaire di yuuxu wàllu ngir ñu tijjiwaat ko. jigéen wéru yi léeg-léeg daf si am ñoo xam ne bu ñu demee ba ba ba àgg euh, fi ñu fi ñu war moom moomee seen bopp day am ay jafe-jafe pour ñu ñu ñu yeewee ko donc lu si ëppoon solo nag loolu bu mu saan am dañ leen dugal bloc opératoire yeewi leen si si jàmm ak mais léeg-léeg loolu du mu su am da nga yenu malade bi jàng-jàng nga yóbbu ko Linguère wala nga yóbbu ko Touba si ay jamono yoo xam ne peut-être comme ni ma la waxoon ambulance yi ak am ñoo xam ne sax dañu lor si yoon wi na euh, gënul kon. ki nga xam ne moo jiite centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara moom nag di dalal xel yi. di leen wax ni rek ministère de la santé et de l'action ak ay partenaires am euh, fu mu toll nii euh, def nañ tout pour revêtir de ce bloc fi may wax yéen déjà jot nañ. Euh, benn médecin boo xam ne incha allah rabbi war naa jël bientôt service pour euh, euh, bloc bi déjà te loolu muy pas bu rëy ci wàllu ubbi bloc boobu noonu te suñ su jógee on va incessamment aussi xool ay efforts yu ñu war a def pour am technicien supérieur en réanimation su ko defee incha allah bloc bi dox si jàmm ak salaam malade yi nga xam ne dañu daan référé pour ay césarienne yooyu yëpp ñu mën ko di ko gérer fii si centre de santé bu Elisabeth Diouf de Dara population bu daara toll ci ñeent fukki junni ci ay nit looloo waral ñuy ñaan ñu defal leen ab hôpital niveau de bu ko defee woy feebar yi daan dem ci dëkk yu sore yi ñu mën leen faa faj. te nawet bi nag door na dëgg ca diwaanuk uh, maatam ak jafe-jafe yi ma fa jot a indi ñaari doomu aadama uh, ñàkk nañu seen uh, bakkan ñetti téeméer ci njaboot tey ñi ngi ci guddi gu bët setagul li ko waral seeni kër nag daanu na ba tax na nag ñu nekk ci ab jafe-jafe njiitu réew ma sax ca noone la yabalee nag jëruñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu soxal wàlluk jàppalante ngir mu dem rek wallu ji ñoo ne am lu mu leen yóbbul nag ci ndimbal Ali Bandel taw yu bëri yi nga xam ni tàmbali nañu wàdd ci diwaan wu Matam yóbbu nañu ñaari bakkan ca ba ak ñi nga xam ni dañ ci amee ay gaañu gaañu ci loole ñu yokk ci dëkkuwaay yu bëri yi nga xam ni ndoxu taw bi daf leen daal di daaneel ba mu jurte lu ëpp ñetti téeméeri njaboot yi nga xam ni ay sinistré lañu ci njombe googee la njiitu réew mi daal di dépêché ministre bi yore wàllu solidarité nationale di Samba Ndiobène Ka ngir mu amal tukki masawu ñiy loru waaye itam indi leen ab njàppandal kenn ku nekk ci réew mi dégg na dégâts yi nga xam ne occasionné na ko ci biir réew mi fii aussi biñ ko déggee dañu ñëw fii pour saytu jafe-jafe yi nga xam ne moom la population sinistrée jànkonteel ñu xool lan lañ ci mën a saafara ñu saafara ko luñ ci mënul saafara ñu jéem koo yeggalee fi nga xam ne foofu lañ ko war a mën a saafara ma jaale population du Fouta yépp jaale leen ci turu président Macky Sall waaye aussi dalal leen dalal seen xel également ci présence bu état ci biir ak ci bitti incha allahu taala fii ñu nekk nii nag ñoo ngi fi ñu naan Wéndu Boseyaabe jël nañu benn appui bu tolloog euh, ay denrées alimentaire ñu indi jàppale ko ñi nga xam ne dañoo sinistré mais jël nañ également enveloppe bu am solo buy tolloog 60 million ñu jox ko gouverneur. di ab jéego bu am solo bi nga xam ni njiitu mi def na ko ci xalaatu Daouda da di di premier questeur ci assemblée nationale doon itam maire bu Orka Diéré. kontaan nañu trop ñun en tant que maire tamit maa ngi koy remercier moom le ministre di remercier le président de la république son excellence. Euh, woon nañ ne mosul fàtte sénégalais sénégalaises yi boobu ba léegi à chaque fois bu problème amee moom day taxaw te wane li tamit san ne fait même pas une donc bu affaire bii amee léegi ñëw na délégation bi ñëw na indi na fi ne ndimbalam aussi indi nañ fi vivre indi nañ fi tamit xaalis boo xam ne population ñi ci loru ci mbënn mi ñoom ñoo ko yelloo ñoo ko moom ñu koy sant di ko gërëm. lu ko jëlee tey ba ba ba Sinthiou Bamambé jaare ko Ndendori ba Polel be askan wi nag génn nañu ak doole donte njombe gi am na di rafetlu jéego bi nga xam ni njiitiro bi defal na leen ko. ma eh, ca diwaanu Matam la ñuy eh, des nag ak eh, taw yooyu nga xamante ne tam bari na lool lu mu yàq ci dem baak dikk ba tey bu ñu xoolee sax neenu liggéey bi nga xamante ne nag jëm na ca tali bi war a dox ci diggante ci loolu nag gi dafa sax taxaw muy ay jafe-jafe yoo xamante ne lu ñu fa nemmeeku la directeur des routes nag am na ay kàddu yu mu yëkkati Mamadou alasan Camara directeur de routes ñu teewlu ko ak Ali Bandel xanaa ñàkk rafetlu lu xew parce que entreprise bi jël engagement ferme que malgré le fait que 6 avril 2021 la délé bi waroon jeex mais mu ne compte tenu li ko desee liggéey du ko mun a jeexal si 6 avril bi mais balaa nawet bi di dugg moom dina ko jeexal ci loolu la ñu sukkandikoo wax ak nit ñi nañu dal que effectivement euh, que travaux yi balaa nawet bi di ñëw dinañ ko jeexal te ñun li ñu fa fekkoon wax dëgg yàlla munoon nañ ko jeexal balaa nawet bi. léegi dañu leen di gën a soñaat en tout cas ñu xayma li li des jël ay matuwaay entreprise bi def liggéey bi su ko deful euh, en tout cas entreprise bi euh, bu ko deful Ageroute ak euh, ministère ñu xool en tout cas ay pexe pour que liggéey bi mu jeex le plus rapidement en tout cas dootuñu leen mayati li nga xam ne ne moom moo fi moom moo fi xew. fi ñu taxaw ni nag mooy Sinthiou Mogo li ñuy constaté dafa am lu circuler ci réseaux sociaux yi wane ne ndox bi dafa yëg mu tiital population yi. parce que dañ yaakaar ne ouvrage bi nga xam ne ne moom lañ fi moom lañ fi tabax dafa néew. ci benn bés euh, pluie boo xam ne ne euh, boo moo gën a rëy ci cinquante ans yi wodd walla ci cent ans yi forcément da ngay gis ay ay ay ay faiblesse loolu tekkiwul ne liggéey bi baaxul. niñ ko waxee woon ci euh, ponk yi les bonnes feuilles de la rédaction ñu koy indi nag alxames euh, june di sëgg nag lu ci bari euh, cib téere di ci defub njàngat bii nag la pomme d'Adam lanu ko duppee la mu dëxëñ nag bari na taarix la jaar-jaar lu ci biir rawti nag jaar-jaaru Doudou Gueye moom professeur mathématique la ak ñu naan Roqaya nekk nag ab étudiant bu ndaw ci wàllug médecine la mu nekk nag ñaari dund yoo xamante xamante ne euh, wuute na waaye jaar-jaar yi kon mu mel ni itam euh, bari na ci biir euh, rek téere bi gis nañu ci sëy tàggoo ba ci rek kujje Ibou Diouf li tax may bind mooy pour sama yëg-yëg samay émotion ma mën ko bokk ak ma mën ko fësal mën ko bokk ak ñeneen ñi may liir. toog di xalaat di bind ne bokk na ci li koy bégal loolu sax mënees nañu jàpp ne moo waral Fatou Ouleye Samb fësal bi la téere loolu moo tax ma bind la pomme dedans ci téere bi li ma ci bëgg a fësal mooy le fait que parents yi de plus en plus waajur yi dañuy dem topp bëgg alal am am ak bëgg teral seeni doom dëgg la ba dañuy fàtte sax di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci bi la téere nag bindkat bi fësal taar ak lépp li nga xamante ne moo wër wallu mystère wala jafe-jafe yi ñuy faral di nemmeeku ci kaw suuf. ci livre bi am na ay euh, thèmes yu bëri lu ci mel ne viol sàkku nit am na également euh, lu ci mel ne avortement yàq biir. Euh, am na également message bi nga xam ne mooy nan laa ko mën a waxee. ci téere bi mu mool nag duppe ko Pomme d'Adam ab histoire la diggante professeur bi di Doudou ak benn étudiante bu ñuy woowee Roxeya non du Gueye xamuma ko dama xalaat nii rek parce que man en réalité euh, dama nekk nit koo xam ne xaritu nit ñi laa dinaa gis ay affaires yoo xam ne dinaay dund ay affaires certainement man dama optimiste dama nekk nit koo xam ne dama bëgg lépp am mucc bu rafet. bu weesoo nag li nga xamante ne rek mën nag jagleel ñëkk a liir du ñàkk mu xool weneen yoon bi muy aw ngir lim ci dëxëñ askan wi gën ci jot. ñu bëri ñi nga xam ne jot nañ maa liir ñi ngi may laaj euh, tome 2 mooy deuxième partie pour livre bi ñeneen ñi ngi naan ma naan ma def ko film am na ay proposition pour film am na ay proposition pour série bon maa ngi xool euh, fii ak ci kanam. roman bi nga xamante ne rek Fatou Ouleye Samb fësal na ko daanaka ëpp na téeméeri page mu duppee ko La Pomme d'Adam mooy nag livre bu njëkk ñu ne loolee may na ko mu gën a jege ñi nga xamante ne. ñooy safu ñu koy jaajëfal Ibou Diouf ñu wax rek ci tàggat yaram diggante ba nag jeex na diggante rek Léo Messi ak FC Barça fukki at ak juróom-benn ànd nañu ko moom footballeur bi nag tey taxaw ngir wan gannaaw club boobu nga xamante ne nag yàgg na fa lool waaye ëllëgëm ci yeneen i club yan la xamaguñu lim ci mën a doon daal ànd ba kon jeex na Ibrahima Kane. xabaar gi mel ni ab ndell bu daal kalaate Lionel Messi du doon joueuru FC Barcelone ci saison bi ñu dëgmal lu ni mel Barcelone xamle na ko tey ji ci ab communiqué te moo ne day doomu Argentine bi ak club espagnol bi amoon nañ ab déggoo mu aju ci prolongation contrat mu jëm ba 2026 wante lu ni mel mujjul antu ndax ay jafe-jafe ci wàllu koom mu di situation boo xam ne Barcelone ak Léo Messi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi koy naqarlu comme ni ko Barcelone xamle ci communiqué gannaaw kon lu ëpp fukki at ak juróom yoo xamante ne ay ndam yu bëri Léo Messi am na ko ak FC Barcelone doomu Argentine bi kon jamono ji faw mu wuti beneen club bu bees boo xam ne sax amaana mën na doon Paris Saint-Germain Lionel Messi joué na. juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti match ak FC Barcelone ak ay statistiques yoo xam ne yu jéggi dayoo la moom Pulga bi dugal na juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari but ci maillot Barcelone joxe itam ñaat téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñetti passe tey jii nag donte du coobareem wante faw mu wan ginnaaw club FC Barcelone bi nga xam ne gagné na ak ñoom fanweer ak juróomi trophée kon FC Barcelone ñàkk na joueuram bi gën a xareñ te Liga bi itam boo moyul mu ñàkk mégastar bi di Léo Messi. ma ngoog Pierre moom ma ngay njoxtu ni Paris Saint-Germain la jëm moom moomu di Léo Messi euh, xibaar yi ci euh, tàggat yaram euh, ba tey ak ni ñu ko waxee woon nag Madi Touré gannaaw rekk ba mu nemmee ko yenn ci diwaan ci senegal programme nag teg na ko leex na la mu bëgg mooy fauteuil bi maître Augustin Senghor toog ay coppite nag dana ko indi ci football bu Sénégal loolee mooy ay kàddoom Cheikh bu Diarra ñu mën di amal football ci réew mi yëpp loolu moo di mbébét bu Madi Touré bii di yootu jiite fédération sénégalaise bu football su weesoo teg gazon synthétique ci gox yëpp bëgg na tabax ay stade yu am norme internationale ci juróomi région et ces stades là dañ ko war a réhabiliter à trente mille places bu ñu yàlla defee tey ñu am cinq stades yi cela nu permettra d'organiser une coupe d'Afrique Madi Touré candidat bi fas yéene yeesal ba ci yorin bi. le changement de notre bu ñu bëggee jox suñu football xar kanam bu yees faaw ñu indi ay coppite ci anam yi ñu ko yore man fas yéene na lancer benn offre d'emploi ngir ñu tabb directeur wala sax directrice général bu fédération bi ñaareeli ponk bi mu ngi soxal coppite yi ci wàllu tex yi naka noonu cumulu poste yi ak itam anam yi ñuy tabbee njiital fédération bi am naa yéene démissionné ca génération foot bu fekkee ne tabb nañ ma ngir ma jiite fédération bi ndaxte kuréel la boo xam ne ki koy jiite dañ koy soxla saa su ne. ay coppite itam bëgg na ko indi ci club yi. tout club boo xam ne nekk na première et deuxième division da nga war a am centre de formation dafa am nag ay délai. j'ai un programme réaliste et soo leen si gisee seen bopp ñëw leen ñu liggéey le football sénégalais. Madi Touré bi ànd ak pas-pas ñu mën jàpp ni ay yéeneem bëri na ci football bu Sénégal suñu ko falee ci bopp fédération bi ci samdi bi jërëjëf euh, Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci 48 20 heures xibaar yi ci nasaraan euh, di ngeen ci ànd ak Sara Cissé